Je suis Ndey Ndeye journaliste la artiste plasticienne la si biennale 2018 bi ma ñëw nag présenté sama exposition ñu tuddee ko menu moins 5. menu moins 5 dañ ko def nag pour wane eh, jigéenu Sénégal si lan la mënee si la séduction bu ñu wax séduction mooy euh, def sa mënin maanaam defar ba mu baax comme niñ ko fait, pour Topoto sa jëkkër téye sa jëkkër. Euh, neexal ko bégal ko si biir néeg bi parce que fii dañu fi andi benn néeg néeg bu nga xamee ni nag dafay neex ñu lal dara bu weex euh, def ay fer def ay nemmali cuuraay baa ngi nii di jolli def ay euh, ay sër parce que dañu am cosaan booy xool suñu cosaan la ñuy wane amuñu lenn lu ñuy envier beneen jigéen ndax jigéenu Sénégal dañoo wax dafa mën booram mën booram lépp nag pour neexal sëyam boo xoolee fer yaa ngi fi nemmale yaa ngi fi cuuraay yaa ngi fi euh, ñoom guro nga fi ñoom jinjeer ñi ngi fi ñoom petit lépp nag pour rek neexal neexal neexal sa borom kër ba pare nag defar sëy bi ndax am na solo boo gisee séri gis fer yi gis nuisette yi bu ne nag dafa am tur ay kayitu kër gaa ngi fi bul ma wutal wujj